del siwaat na beneen yoon ci waxtu wi waxtu wi nga xam ni ci la ñuy fàttali konte ak seen émission bii di xasasul ambiya te moo di rek waxtaane jaar-jaar yenent yi alayhim wasalaatu wasalaam fa tabaarakallaahu ni ñu koy waxee rek mooy waxtaane jaar-jaar yonent yi dafa nekk lu am solo dana am lañ ci jëlee ci ay bind yu am solo te loolu rek mooy li nga xam ni moo tax a jóg émission bii di xasasul ambiya fa tabaarakallaahu ñuy sant borom bi subhaanahu wa taala moom mi nga xam ni moo nu mayaat ñu fekke ko aljumaa bi weesu mu mayaat nu tey ñu fekke ko ah ñu koy ñaan mu yàgg noo may ñu yàgg fekke ci daraja yent bi sallallahu alayhi wa sallam barkeb alquraanul karim mu mel ni fa tabaarakallaahu eh, ñi ngi feggoog eh, al ustaas Ibrahim Ba jaaroon na fi tabaarakallaahu ay yoon nekk addaai te moo di wootekat nekk itam yarkat fa tabaarakallaahu bokk ci ñi nga xam ni ñooy ñi ngànk daara yi dëkkandoo jàmm ci gën فتبارك الله تي خم خم بوسل ترفت لول خمنا دنو دف لدور رك جوكو كادغي منيو بنيو ني سوغو سوبو تي ليغي تفضل مسكورا الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات احمده سبحانه واشكره على جسيل العطايا والبهات واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له عالم السر والقفيات سهادة أرجو بها النجاة في الحياة وبعد الممات <laughs> وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أفضل الخليفة وسيد البريات صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه واتباعه ما دامت الأرض والسماوات <laughs> إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله ginnaaw bu سانتي sante تبارك وتعالى tabaraka wa pour nu dajewaat fi di julli ci sangu sangi sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam dañuy jël sunu nuyo ak sunu ziaré jox ko al ustaz al hadji abdullah ndjay mu jallalel ñuko ci ñi ni deglu goor ak jigen mag ak ndaw ak borom kër geek ñëpp wax deug yalla jotel ñu sunu nuyo bu baaxa baaxa baax fa tabarakallah ya ustaz tabarakallah ci nuyo yu am solo yoy te tay lol kon yàlla jooju mu làmboo ak yërmande yàlla ak barkeem yàlla na ko yàlla defal ci daraja yent bi sallallahu alayhi wa barke alquranul karim eh mu mel nii e, émission bi mi ngi waxtaane jaar-jaar yonent yi alayhimu ñu nekkoon ci yent yàlla Muusa alayhi salaam nekk yonent boo xam ne istafahullah yàlla moo ko tànnal boppam gannaaw bi ko sunu borom subhanahu wa taala tànnee def ko mu nekk minal ambiya te mooy bokk ci yenent yi waaye tam def ko itam minal rusuli mu bokk ci ñi yàlla yónni waaye tam def ko mu bokk ci ulul asmi minal rusul te moo ji ñooñu gën a am volonté ci yenent yi ca la bokk moom Moussa alayhi salaam oustaz ñu toll ci période boo xam ni fa tabaarakallaahu xel yëpp dem na ca dëkk bu sell ba te moo di al makka al mukarram waaye itam xel yëpp itam dem na ca al madina al munawwara mu mel ni eh, ñaari dëkk yooyu tànneef lanu ci dëkk yi ndax makka mooy ndeyi dëkk yëpp te sang bi salawatullahi wa salaamu alayhi foofee la juddoo waaye itam foofee la yaroo maanaam fa la màgge ndawam yëpp fa la ko def fa tabarakallahu waaye xam nga ni nekk na fa ab diir suñu waxee ab diir mooy ay at maulana subhanahu wa taala ca mbaaxam ca kattanam ca dogalam bu ba e, mu génn màkkatul mukaram waaye nekk dëkk bu bëgg nekk dëkk bu mu wóolu nekk dëkk bu mu fonk fa tabarakallahu dem al madina al munawar kon xasasul anbiya tey dafay ñëw ak yéen ci tabarakallahu wàccaayu xaj makka ci nit ki ni mu war a waajale fii ak jikko yi nga xam ni wala jikko bi nga xam ni moom la war a jikkoo bu nekk ci dëkk bu sell ba yaakaar naa tey loolu la xasasu ambiya yi indi mu nekk lu am solo ndax tey jii xol boo xar tey la ngay fekk ci biir te mu nekk di ab jullit mooy dem ci dëkk bu sell ba kon oustaz fa tabaarakallaahu ñi ngi ndokkeel mbokk yi ñi ngi tabarakallah ñaanal mbokk yi rawatina ñi nga xamni ne jamono ji ndeysaan tooguñu waaw jamono ji ñi nga xamni ni ah ñi ngi ci préparation ñi ngi ci ay formation ngir lan xam naka la nu wara a ci dekk ba ji tabarakallah wa emission bi mu gën tanal ngir bëgg waxtaan ak ñom ci yu am solo yoy waaye oustaz fa tabarakallah makka Ah, dafa bokk ci ponk lislaam yi di juróom ndax xam nga lislaam dan ko tabax ci juróomi ponk maanaam mbaar la moo xam ni boo seetloo juróomi pied moo ko téye waaw ah, moom lislaam waaye juróomi pied yooyu bu njëkk ba mooy shahadatu an laa ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah mooy seede ni amul benn buur bu yàlla waaye itam mooy seede ni Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yàlla moo ko yónni waaw ba ko ñaareel nag moo di al iqaam salaat te mooy taxawal julli juróom bokk na ci pieds yi nga xam ne ñoo téye lislaam bokk na ci ita u zakat te mooy génne asaka ba noppi joxe ko kooku daa bokk ci pieds yi téye lislaam waaye bokk na ca ba ko ñeenteel saw mu ramadan te moo di woor weeru koor xam nga ci lañuy ñuy jóge barki dem moo njaay waaye ba ko juróomeel nag mooy xajjul bayt waaw xajjul bayt te mooy aj néeg yàlla ba te moo di kaabatullahi al musarraf yàlla ba sell boobu te tey ndeysaan kon yooyu mooy ponk yi nga xam ni oustaz moo téye lislaam waaye euh, bu nu gënee càmbar mbir yi dañu gis ni kon shahadatu an la ilaha boo ko xisee wax rek wa ashhadu anna muhammad rasulullah kon dàq nga lépp teg nga yàlla xam nga ni kon amul kenn kon war a jaamooti ci kaw suuf wala fu mu mën di doon ku dul Mawlana subhanahu wa taala xam nga itam ni saxal nga itam ni euh, yàlla rek mm-hmm. ngay jaamu jaamu nga jural la njariñ ñàkk gaa jaamu juru la lor waaye itam saxal nga ni Mouhamed daal tànneef la ci tànneef yi yàlla yónni ko tabaarakallaahu mu nekk yenent boo xam ni mboolem yeent yi tabaaraka ak li mu làmboo am ko dul moom fa tabaarakallaahu oustaz di nga ci jàngate itam ni loolu ñuy wax azakat te mooy joxe azaka dafa nekk lu am solo waaye laa tey boobu asalaat te mooy julli mhm. dangay gis ne kon julli googu li tax mu am solo euh, yént bi salaay sam wax na ni ëllëg yowmal xiyaamatil akbar moom na ni njëkk xool ci jëfi jaam su baaxee léppam baax mhm. waaye su yàqoo léppam yàqu mhm. te itam ñu ngi misaal ni jëm ji dox te amul bopp noonu la ne misaale ki nekk ci diine lislaam ba noppi te du julli mu ngi mel ne jëmm ji taxaw te amul bopp waaye oustaz euh, joxe asaka itam nekk lu am solo ndax itam am na ñoo xam ne ñu ngi dundandoo ak yow waaye seen loxo jotul seen ginnaaw te yelloo nanu ko nga yëkkati ko jox leen loolu it nekk na ci wala boog bokk na ci li nga xamante ni tabaarakallaahu am na solo mhm. waaye nag ba ca mujj nag mooy xaj néeg yàlla ba nekk ponk boo xam ni moo nekk cinquième ponk waaye nag noonu la amee solo noonu la réyee noonu la foore noon la lamboo yoo xam ne tabaarakallaahu yàlla rek moo xam oustaz kon bu fekkente ni yaa ngi doon jàngat ci juróomi pie yooyu nga xamante ni tabaarakallaahu ñoo téye lislaam te itam tabaarakallaahu benn bu ca daanu rek dafa mel ne si diine dafay bëgg a màbbu ah loolu nekk lu xaw a doy waar waaye bala ñuy ñëw rek nga may nu tuuti tabaarakallaahu mbokk yi nga xam ne toujours dañuy ànd ak ñun ci émission bi ñu nuyu leen tabaarakallaahu ku ci mel nii fa tabaarakallaahu ajaan naar saw fële ca cité enseignant ñu koy nuyu di ko ziar di ko ndokkeel waaye itam di ziar baax euh, Asis euh, an borom këram du nu fàtte mukk itam tabaarakallaahu soxna Bintu Diouf ñoom ñëpp ñu ngi leen di ziar waaye dem ba sacré kër 3 oustaz fekk fa ay soppe ku ci mel nii tabaarakallaahu Adja Kumba Wali Diagne toujours dafa ñuy déglu ci sunu émission bi ñu ngi koy ziar baax di ko ndokkeel di ko ñaanal yàlla tabaarakallaahu defal ko tawfiix ak sir waaye oustaz dem ba fële ca tabaarakallaahu amoo kat fekk fa soxna fiitu Ñang Adja Aïda Anne ñoom ñëpp ñu ngi ñuy bàyyi xel di ñu teewlu ci émission bi waaye duñu fàtte mukk tabaarakallaahu Adja Ndeye Demba Seck fële ca Malika ak Adja May Touré ñoom ñëpp dañuy bàyyi xel soxna Fatou Diagne ñoom Adja Ndeye Oumy Thiam ñoom ñëpp ñu ngi leen di genre di leen ndokkeel waaye nag dem ba Kër Massar fekk fa mbokk bu baax di Mouhamed Talla station Al Maktab ñu ngi koy ziar di ko ndokkeel oustaz soxna Aminata fële ca Pikine fa tabaarakallaahu sunu soppe xarit ñi ngi koy ziar moom itam di ko nuyu bu baax a baax a baax di ko ndokkeel waaye dunu fàtte mukk sunu xaytu bopp Mbaye Babacar njaay sëfuru taksi tabarakallaahu fële ci cité gàddaay dëkk ci Sam Ndiaye ñu koy ziar bu baax di ziar itam tabarakallaahu euh, soxnaam soxna Mami Diop moom itam ñu koy ndokkeel baax di ko ziar dunu fàtte mukk Serigne Bàcc Jaxate ak euh, soxnaam tabarakallaahu Ndey Faatu ñun ñëpp ñu ngi leen di ziar waaye ustaas dunu fàtte mukk serinya eh, serigne modou yombe mom itam mi ngi bayyi xel toujours ci sunu émission bi ñu ngi koy ñaanal yalla defal ko tawfiq ak taysir serigne xaar ndjay ñom ñep yalla defal len tawfiq ak al hasan fall ci daru tre eh, ñoom xaali tabarakallah ñoom ñëpp ñu ngi leen di dokkeel di leen jaar ci sunu émission bi ñu ngi topp bu baax a baax a baax waaye mukk tabarakallah eh, mbokk mu baax tabarakallah moom itam ñu ngi koy ziar bu baax di ko ndokkeel tabaarakallaahu ñoom ñëpp sëñ Ndonga li Gaye tabaarakallaahu ak euh, sëñ Muntaxa Gaye alhaaji Mali Gaye bu waa wala métal ñoom ñëpp ñu ngi leen di ndokkeel di leen ziar oustaz fa tabaarakallaahu aj Makka ngoog ñu ngi ci wàccaay bi euh, xam na bala ñuy ñëw rek danañu la andil benn xadis bu gàtt boo xam ni taraxiib la buy xeemem loo mbokk yi aj aj Makka su ko defee nag nga indi sa jàngat fa tabaarakallaahu حديث eh, bi oustaz نينكو ngi ko jëlee ci Abdullah ibn Abbas radiyallahu anha mu كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بمنى إذ اخبرت طائفة من اليمن فقالوا في ذاك الأمهات والآباء أخبرنا يا رسول الله بفداء الحج قال بلى أي رجل خرج من منزله حاجا أو معتمرا فكلما رفع قدما ووضع قدما تناثرت الذنوب من بدنه كما يتناثر الورق من الشجر فإذا ورد المدينة وصافحني بسلام صافحته الملائكة بسلام وإذ فإذا ورد ذو الحليفة واغتسل طهره الله من الذنوب وإذا لبس ثوبين جديدين جدد الله له من الحسنات وإذا خال لبيك اللهم لبيك أجابه الرب عز وجل بلبيك وسعديك أسمع كلامك وأنظر إليك وإذا دخل مكة وطاف وسعى بين الصفا والمروة وصل الله له الخيرات فإذا وقفوا بعرفات ودجت الأصوات بالحاجات باها الله بهم ملائكته سبع سماوات ويقول ملائكتي وسكان السماوات أما ترون إلى عبادي أتوني من كل فج عميق شعثا غبرا قد انفقوا الأموال وأتحبوا الأبدان فهو عزتي وجلالي وكرمي لأحبن مسيئهم بمعصدهم ولأخرجنهم من الذنوب كيوم ولدتهم أمهاتهم وإذ فإذا رموا الجمار وحلقوا الرؤوس وزاروا البيت نادى مناد من بطان العرس ارجعوا maxfuuran lakum allahu akbar ko yàlla def yal na yàlla defal nu tabaarakallaahu soley xadis boo am solo boobu oustaz dina ci ñëw léegi incha allahu taala euh, loolu xadis la boo xam ne dafay tarxib loo xemmeñ loo mbokk yi nga xam ne jamono jii ñu ngi waaj pour mottali ji seen juróomi lu ponk euh, wone rek ni tabaarakallaahu aj li ci nekk ci ay yiw li ci nekk ci ay ngëneel mhm. amul tabarakallahu ci leen mhm. dañu jëlee ci abdullah ibnu abbas radiallahu anha mhm. mu ne am na benn bis dañu nekk ak yonent bi sallallahu alayhi wa ci place bu ñuy wax muna munaa nag yaakaar naa ni ku jóge fii dem màkka tabarakallahu danga nga fa àgg ndax symbole la boo am solo nee bi ñu toogee ba yàgg rek am benn mbooloo boo xamante ni ña nga bawoo yaman tabaarakallaahu egsi ci ñun daal di toog daal ni ah ñoo ngay giñ ci sunuy yaay di giñ ci sunuy baay yow sang bi dañu bëggoon rek nga wax nu xibaar nu ngëneel yi nga xamante ni tabaarakallaahu moo nekk ci aj màkka ndax nag bëggoon na noo xam lool ngéejoo lool xam ngëneel yi nga xam ne moo nekk ci aj màkka ah nee na yéen bi sa laay neen ah kay waaye dinaa leen xamal lenn rek ci ay ngëneel yi nga xamante ni nekk na ci aj makka te mooy euh, mottali di sa juróomeelu ponk nee na euh, mu ni ko amul kenn koo xam ni moo xam góor la wala jigéen dana génne këram ngir aj si makka wala ngir omra si lu dul ni heure bu yëkkatee tànkam tegaat rek nee na ay bàkkaaram mooy deñ ci moom waaw heure bu yëkkatee tànkam teg maanaam jéego bu mu teg rek maanaam dañuk ay bàkkaar la waaye du ci yem oustaz ñun koy misaale mi ngi mel ni garab gu sëq ba mbooyee ñëw nee na bu xob yi ni xob yi di ruuse ca ca garab ga ba benn xob nee na boo tegee sa tànk dem aji màkka noonu la bàkkaar yi nekkoon ci yow yëpp di ruuse ba desit mu nekk lu am solo mu ne ko su fekkente ni jóge nga fi tam ba tabbi madinatul munawwar ba saafonte ak man ci jàmm nee na malaaka yi danañ saafonte ak yow comme ni nga saafonte ak man ne itam boo àggee zul xulayfa te ñu gën koo min ci biiru ali nga xam ni fa ngay defee yu bari tabarakallahu sangu laab nee dañ nga ci ay bakkaar set nga wicc itam ca ay bàkkaar waaye tam nee na boo solee sa ñaari yére yooyu sa càm làmbaay yooyu tabaarakallaahu nee na tabaarakallaahu yàlla salaat la ci ay yiw nga wax allahuma la lakka la bayka nee yàlla subhaanahu wa wuy la ci sa woote woote boo bi nga ko woo ah sax loolu nekk lu am solo ne dégg naa sa kàddu te maa la teg bët nee na boo tàbbee màkkatul mukarram nag ba wër ba nga te mooy tawaaf dox diggante safa ak marwa nee na lamboo nga jokkoo nga yelloo nga ay yiw yu bari lool waaye ne na boo tabbee fële ca Arafat ne na di ñaan sa borom di yëkkati say kàddu say aajo ne yàlla dafay puukarewu ci yow yàlla dafay kontaan ci yow ba wax ak malaaka mi ni leen génn leen yéen ñi nekkee ci kaw ngeen xol sama jaam yi nga xamanteni ñoo ngi ma dikkel fi bayiko ko ci gox yu pasantikoo yi tabarakallah and ak seen pousser and ak seen dépasser seen alal seen yaram yi son waye ma ngi giñ ci sama magga ma ngi giñ ci sama tedd nga ah eh, nit ñi kat mboolem ñaaw ñaaw bu no def nako mu mujj nek di ay rafet rafet manana jéggal na len seen bakkar yépp waaw ba nu mel ni comme leen seen yaay jure woon xattaa ba ci usaas bu na sànnee seen jamra yooyu wat seen bopp yooyu wër la boobu nee na dina am aji woote gu foor te moo di woote ak sunu borom subhanahu wa bu leen di wax ne ah léegi nag seen aj jeex na delluwaat leen ci seen kër ya ngeen delluwaale njëggalu bàkkaar usaas loolu nekk lu am solo te loolu boo seetloo lii mooy li nga xam ne moo ëmb ak màkka ndax mbokk yi jóge fii danañ jaar madinatul munawwar suñ jógee madina danañu dem màkka def fa yu bari tabaarakallaahu ci mel ni kii kon sa jàngat ci xadis bi tabaarakallaahu ak loo ci dolli jërëjëf seex bi wax dëgg yàlla xadis bi am na solo trop dëppoo nag la yàllay wax ci alquran ci nga ko tënk ndax bu yàlla ne ya ayuha allazina amanu astajiboo lillahi wa li rasuli isa daakum lima yuxiikum kon foofu nga woote mu dellu waxaat ne yaa ayuha allazina amanu ittaqula xaqa tuqaati wala tamutunna ila wa antum muslimun mu dellu waxaat ne yaa ayuha allazina amanu irkacu wasjudu wabudu rabbakum wafcalul xayra laallakum tuflihun mu ngoog ndeysaan oustaz jàng nañ ci nekkoon ba nga jëkkee wax ne buniyal islaam ala xamsin shahadatu an laa ilaha illa allah ndax li nga wax di aj day ànd ak lislaam bi ndaxte lislaam ci boppam nekk na loo xam ne dañ ko tënk ci juróomi mbir comme ni nga ko waxee juróom mbir yooyu nag kiñ ci tënk mooy jullit bi jullit bi mhm. moom la yàlla ne yow mi nga xam ne gëm-gëm mhm. na nga mu wuy na nga wuy si yàlla mhm. ak ab yonentam suñ la woowee foofa ko fa woote yàlla walillaahi ala naasi xajjil bayt mu ngoog kon yàllaa woote ndeysaan ñoom ñëpp ñu àndandoo takku dem wuy ji yàlla bu ñu àggee ci wuyu ji ngay wuyu yàlla ji ñu wuy ji yàlla yàlla na leen ah na ngeen ma ragal nag allahu akbar dëgg-dëggi ragal ndax yobbal bi gën ci yobbal yi foofa moy ragal yalla allahu akbar alkam solo mo ngo mhm. mu ne la wat na nak ah yow mi nga xamne ne gëm nga mhm. war kaxoo mhm. demaru ko was wasjudu del sujjóot waabudoo dema jaamu delen leen sen borom te ngeen di def lu bax ndax xagnna na joju nga wax ak njëggalu bakar gog nga wax dal ci sen ko allahu akbar te lolou kep nit lépp loo xamante ni bii maa ngi koy def bëgg naa xam njariñ la comme ni nga wax. wallaay ndeysaan. ne. yéen Seydina Aliou daf ko laaj yonent bi comme ni nga wax. Mhm. dafa ñëw ci yonent bi alayhi salaatu wa ne ko. Mhm. ginnaaw bu ñu àndee doon aj ñoom ñaar. Mhm. ca baytullaahi bi ñu ajee ba pare. mu ne ko waaw yow mii nga xamante ni bii yaay sama baay. di sama yaay. dama lay laaj. maa haasal baytu. néeg bii ban néeg la. bi mu ko waxee loolu fa sallallahu alayhi wa sallam ne ko yaa aliou asasu asasallahu subhanahu wa taala haasal baytu fi daari dunia kafaaratan li sunoo bi ummati kon daje na ak li nga wax mu ne ko aliou da ko ne waaw yow mi yàlla yónni néeg bi néegub lan la lan mooy néeg bi mu ne ko néeg bi de yàllaa ko defar taxawal ko sos ko ngir lan mudon doon loo xamante bi bii fi ci daru aduna la ci aduna la mhm. ak fele nu jubal ngir lan mhm. njëggalu bakkar allahu akbar tabarakallah bim ko waxe lolou mhm. ali dal dikoy nek ne ma hasal hajar aswad mu ne ko waw doj wu ñul wi nak lan la khala tilka hajarul aswad a jawharatun kanat fil jannati ahbituha lahu ila dunya kon li nga fi wax lépp tënkuwaat na ci lii nga xamante ni bii moom lañ andiwaat ndax ba mu ko laajee doj wi doju lan la mu ne ko doj wii kët nekk na loo xamante ni bii doj yi li xam nga istuwaaru doj wi suñu ko xoolee lu yaatu la dëgg la ndax xajarul aswad nekk na loo xamante ni bii ba mu moom mooy li nu fi jiitu nun parce que seede nu démb. Uh-huh. tey door a ñëw. lay lay sànn. alastu bi rabbikum ji ku tontu woon. lay lay sànn. yaakaar naa doj woowu moo tootoon. Uh-huh. xaaloo balla. Uh-huh. Hmm? bokk na ca la tontu woon la ko seede woon. ba ñu tontoo. bokk na ca la ko seede woon. mu mel ni kon njëggalug bàkkaar. nga xam ne xajjul mabroor kon ñi ngi ko waxee. du dara lu dul aljanna. te aljanna na kuñ fa yóbbu jéggal nañu. walaay ndeysaan tabarakallah. Hmm? saas am na solo mu mekk loo xamante ni bii aj. doon na ponk ci ponk lislaam wallaay ndeysaan yoo xamante ni bii mooy dernier ponk ba mhm. waaye dala caa tegal nag ne la mhm. man istataa mhm. ak am solo waaw ak am solo man istataa waaw man istataa jooju oustaz dafa yaatu xañ na buñ ne man istataa dañ ne dañoo yaakaar ne ci wér la rek déedéet dañoo yaakaar ne it ci am am la rek déedéet man istataa ji dafa yaatu fépp ndax benn yow fa nga jëm. nee nga loo fay wuti ak sàkku ji. ak njégal ak njëggal sàkku ji leen yërmande. te loolu nag bu fekkente ni mastataa ñëwul. du mën a sotti. fokk nga am. manistataa boobu. pour nga mën a dem nag. jooxe ji la nga xamante ni man moom nga doon waxtaane muy aj. te aj dafa am fu ñu koy aje. bu amee fu ñu koy aje amoon na am na ay jamono yoo xamante ne bii ci lañu ko jagleel. foo mën a aje. fu dul foofa amoo aj. boo ajee te ci jamono yi nga xamante ne bii mooy xusoosiya amoo aj kon day ànd ak jamono joo xamante ne bii ci la ñu ko jagleel ndeysaan waaye tamit ci ca bërëb ba nga xamante ne bii fa la ko wootee la ndeysaan bu fekkente ne defe nga ko nii njëggal gii nga wax mhm. ak li nga xamante ni bii wax nga ko mhm. lépp ci kàttanu yàlla ak mbaax ak mhm. nga sàmmoonteeg ndigal ya sàmmoonteeg lañ la ca tere di nga dajeeg njëggal gii nga wax a am sa oustaz tabarakallah oustaz xam naa xadis bi nga daaneele léegi rek jàngat bi rëy na te moo di li nga wax ni Aliyu dafa am benn bis mu laaj sang bi salawatullahi wasalaamu alayhi ne ko waaw lay lan mooy soloy nee bii waaw ah, lan mooy solo yu ndébi mhm. ci sa biir wax wax nga ni Mawla ah, yent bi salaay sam tontu ko ni ko mhm. néeg bi daal mhm. yàlla da ko wàcce fii ci àdduna ngir lan mu effacé bàkkaar sama xeet wi kafaatun li zunubi ummati ngir effacé bàkkaaru sama xeet wi kon liñ ciy déggee mooy ndekete woo ñi nga xamante ni ñooy waaj Mm-hmm. pour dem ca dëkk ba sell ba mm-hmm. bu nu waree néew ba néew ba ba ba seen aj jeex mm-hmm. jàpp na ne kon deseetunu bàkkaar ci kaw suuf wallaahi dëgg deseetunu bàkkaar ci kaw suuf maanaam bàkkaar bu nu amoon rek suñu borom jéggal na leen ko kon ndekete ñoom ña ngay mottali ji seen juróomi la ponk waaye itam ña ngay sangu ji ba set wicc ci ay bàkkaar waaye oustaz laaj na nag laaj na bu baax tukki boobu nga xam ni masaxala da ci nekk muy coono daf ci nekk. Mm-hmm. waaye nag tukki farata la. Mm-hmm. ndax bari na koo xëy dafay jóge fii. Mm-hmm. ni maa ngi dem Italie. wala maa ngi dem Amérique. États-Unis wala maa ngi dem ci beneen dëkk. waaye gis nga euh, tukki bii tukki Makka. ni ci bayre amee. amul ci benen tukki kon day wone rek ne kon tukki bi mhm. tukki farata la mhm. waye tukki la bo xamni ñane yi fekki tabaarakallaahu dekk bu moy gën gi dekk te moy makka mhm. dekk bu moy gën gi dekk te moy manitul mën a war loolu isaas nekk lu am solo wa isa ci biir loolu dañuy gis tam itam euh mbokk yi euh, bu nu jógee fi fani yi jaar moy al madina al munawar ndax yeen bi sa waxoon na ni ku aji makka ba àggal te jaaro ci man safante ak man mhm. neena na ah, del nga ma ci waxin manam manam beccangal nga ma mhm. te lol sax nek lo xawa day doy mhm. lolou motax bo setlo amna ño xani na ñoo makke eh, def seen aj ba ko sega dem madina waye lu upp ci sunu africain yi fi ni ci afrique wala ci senegal ñom li nu gëna min moy dañuy jóge jaar madinatul mën def fa ay fan sogo tabarakallah dem ca makka ndax xam nga nak Euh, Madina ay ziarat moo fa am ay ziarat moo fa am mhm. farata yi ñëwagul mhm. waaye fa farata yi dëgg dëgg tax ñuy wax mhm. mooy màkk al mukarram waaye euh, pour war la ni Madinatul Munawwar dëkk bu sunu borom barkeel la xam nga wax daal fi ni la benn bis ci jamonoy euh, arab yi dañu amoon ay aada mais ay aada yoo xamante ni lislaam bi mu dikkee aada yi rafet yi daf ko saxal bàyyi ko fi. Mhm. waaye aada yi nga xamante ni rafetul. Mhm. dafa xeex ak moom pour jëlee ko fi. Mhm. waaye bokkoo leen ci seen aada ñoom jaay ak jënd. rek jaay ak jënd. jaay ak jënd rek topp njaay mi topp jënd mi. moo tax alxuraan wàcc ni eh, te mooy rexlata shita wa sayfi. waaw rexlata shita wa sayfi bu seddee ña nga saam bu tàngee ña nga yeman jaay rek jaay rek jaay rek. borom bi ne ah lii kat aada bu baax la ndax ci ngeen di sàmmee seen ngor mhm. ci ngeen di sàmmee seen yi bari mhm. waaye nag fal yaabudu rabba haasal bayti dama bëgg nag ngeen boole ci di jaamu boroom kaaba gi mhm. ndax borom kaaba gi ma leen di jaamuloo allazi at'amahum min joo bu ngeen xiifee moo leen di jox ngeen lekk te it wa amanahum min xawfin lépp lu ngeen ragal moo leen ci génne kon nag aadab jaay ak gën di la na aadoo woon waaye fa tabarakallahu néeg ba kon néeg bu fa yàgg la ndax wax malaaka yi ñoo ko ñëkk tabax mhm. am déet mhm. te boo seetloo fa Kaaba ga nekk tey jii mhm. baytul maamur mañ ca kaw asamaan waaye moo dëppaloo ak moom kon histoire Kaaba gi moo fi jiite lépp fa tabaarakallaahu waaye sax ci biir loolu eh, ñu gis ni almadina al munawar ci seen njaay yooyu ak jënd yooyu amoon na ñett ñoo xamante ni laatay madina di madina eh, dañ doon jaay di jënd ba ëgsi ci bayaal boobu nga xëy tey jii fa la madina di a nekk léegi ñu xaw a sonn. ñu yéesal seeni i gëléem. tëdd foofu ni dañuy nappalu. bu subaa ñu soog a jugaat. waaye bi ñu tëddee ba guddi gi. ñoom ñett ñëpp ñu te gént gin gént kenn ko nekk sa morom gént. moom nga gént. ñu gént. ñu ne ah bayal bii day. gën gi mbindeef. màkk lay juddoo. fa lay yaroo. waaye des na ko fa génne bis. waaye fii lay mujj si fi lay toxu si waaye fi lay faatoo. bi asamaan setee kenn ku nekk nettali sa borom sa gént ka ci des itam wax ne ah man day lu mel ni ki laa gént ñu ne ah, kon luy pexe ñu ne ah dëkk boo xam ne gën gi bindeef fi lay mujj te fi lay faatoo si xam xamaam amaana ñun duñ fi fekk de waaye nanu fi sanc nekk fi bu ko fee bu nu fekku itam fekk fi suñuy sët hmm. ñoom noonu lan sancee dëkk boobu hmm. wax na ni diggante ban fa sancee ak bi fa yent bi salaay sam dellusee ñëwee mhm. tuxu si fa mhm. mat na ñetti téeméeri at allahu akbar nga xam ne kon histoire madinatul munawar mhm. day war ne kon dëkk la boo xam ne fa tabaarakallaahu dëkk bu sunu borom subhaanahu wa bëgg la dëkk bu sunu borom tàndal sang bi la salawaatullahi wa salaamu alayhi te sun duyu fa rahmaan yi te mooy gane yàlla yooyu fa la ñuy njëkk a jaar def fa escale def fa ay ziyaaraat ay fan soog a dem màkkatul mukaram oustaz looy dale ci dëkk boobu bala ñëw ci wàccaay yi jamono yi ndax laaj na kii dem nag ñu am ñu ko gungee mhm. bala muy dem dëgg la mhm. euh, dëkk boobu nga doon waxtaani mhm. di madinatul munawwara comme noonu nga ko nettalee ci génti gaa yu baax yooyu yàlla wël leen ni sangu-sang yi ki tax ma bind leen fii lay du juddoo fii de màkka lay juddoo waaw waaye fii lay gàddaaye waaye tamit fii lay amee li am. Mhm. waaye tamit fii lay faatoo fii lañ koy def. ndeysaan barakallah mu nekk madinatul munawwar Nek loo xamante ni ah. ngeen gi dëkk la. ah dëkk ndeysaan. ngeen gi dëkk la. su fekkoonte ni. Ah. du jëmm Seyduna Mohamed dafa nekk borom barrière yu or ba. ndeysaan kenn du fa nekk. walaay ndeysaan walaay ndeysaan. Hmm? ndeysaan. rek lañ fay borom taay bu rafet ba. jeex na. te bala nga koo xam. rajaul baraya mu ngoog. <laughs> ndeysaan wéyal oustaz. te bala ngaa xam ne moom rek lañu fay fekk. nga dem ba àgg ca raw doom ba yow xam foofa du ma fi sori ndax dem nga fa. dëgg la toog nga ca raw doom ba. wallaay ndeysaan. di nga fa yëg loo xam ne foofa rek nga ko mën a yëg. doo ko yëg fenn ndeysaan. di nga fa gis loo xam ne foofa rek nga koy gis. doo ko gis fenn ndeysaan. te bu doonu ko nag loolu nag. Mhm. kon dara du nekk. wallaay ndeysaan xutbatu naa. kooku. Madina nekk loo xamante ni bi la sos turu Madina ba mooy turu dëkk bi yi kët. Mhm. la nangam lii di amee. dëgg la ndeysaan. nangam loolu amé fe nak motax nun ci maliki yoon wax nga ko légui buñ démé di aji nun fa la ni jubali ndaysan wala ëpp ci nun waaw fa lañuy jaar fa lañuy jëkke lé légui dafa aji ñetti fan buñ démé nak yaa ma gën a xam loolu yaa koy leeral yow ma fa dem <laughs> njàng mi dong du day mais yow mi ko jàng ba pare nga wëlbatikuwaat dem dund ko mhm. ah bu boobaa mhm. li nga nu ci mën andil nun dun ko mën andi jërëjëf kon mhm. ci Madina liñ la bëgg a xamal daal. Mhm. ci Madina li ñu ci yokk daal mooy que ne. Mhm. dëkk mhm. tamit dëkk bu sell la. waaye tamit nañu jàpp ne. kan ñi fay fekki. ay ganam lan. dëgg ndax nee na. ci addis bu wér. su aj googu jotee. amut benn gan boo xamante ni bii dina fi ñëw ziyaar ma nuyu ma. te yàlla delloo ma sama ruux ma fay. cay sang ba te loolu mhm. doo ko amee maak lu wér la lu wér la ndeysaan yaa ngi koy loolu am na solo lool mhm. tabaarakallaahu eh, xam naa oustaz war na nañu ñëw nag ci eh, bala ñuy gën a xuus ci loolu mhm. eh, mbokk yi nga xam ni jamono ji fi mu toll nii ñu ngi wàcc ndax booy wàcc dem ci dëkk boo xam ne xamoo fa wala sax xam nga ko laaj na ñu gunge la ñu gunge la ci ay wax Mm-hmm. laaj ni tam ñu gunge la ci fatri la nga xam fa nga jëm moy fan mm-hmm. waye tam laaj ni tam ñu wax la bala ngay jige fi yi nga wara a gànnaayoo mm-hmm. yooyu it di nga ci andi ay leral waye buñ ci tuddi rek di nga gis jàngat yi inshallah taala andi jàng sa jangal waye oustaz laaj na ci ki nga xamanteni amna bi na pour waaj dem mottali juróomeelu ponkam jamono bi nga xamanteni bi biir na ci loxom jàpp na ni limu wara ndik def mooy sant yalla sant yàlla oustaz ngir lan mm-hmm. ñaatam millions yi doomu aadama ñoo nekk fi ci àdduna mm-hmm. te yàlla wërsëgalewu leen pour ñu dem mottali ji seen juróomi ponk mm-hmm. kon yow boo bokkee ci ñi nga xam ne yàlla daf leen a tànn ci àdduna bi bokk ci ñi nga xamante ni yàlla daf leen tànn ci Afrique bokkaat ci ñi nga xam ni yàlla daf leen tànn ci Sénégal bokkaat ci ñi nga xam ne yàlla daf leen tànn ci biir Sénégal ci région ban dëkk war nga sant yàlla. bu baax a parce que xam ni loolu. nekkul lu tuut. Hmm. nekkul lu rëy te koo seen muy dox loolu ma nga ci am xelam. Hmm. kon laaj na kooku mu sant yàlla. Hmm. waaye laaj na itam tabaarakallaahu mu raxas boppam. maanaa bu waxee raxas boppam mu setal boppam ndax dafa bëgg a sete fa mu jëm. kon laaj na ostaas ki jóg pour dem moo fexe ba li ma koy njëkk a dénk gannaaw ba mu sant yàlla waaye nag mu fexe ba fay ay borom. waaw. koo xamante ne gis na ni kii ameel na ko bor hmm. mu fexe ba fay ko ay borom hmm. wala boog mu gis koo xamante ni hmm. bu ko mënta fay itam dina ko mën a wakkiil mu mën koy fay ay borom même bu del siwaatul te ku demit li ngay ñaan mooy dellu si oustaz loolu muy sant yàlla waaye itam muy fay say bor ci ki nga xam ne moo jóge fi pour dem waaye oustaz bokk na ci itam eh, tabaarakallaahu li ma lay gunge mooy kii dem itam fi njabootam war na fi bàyyi ab dund boo xamante ni mhm. njabootam danañ ci mën a dund ba ba muy dellu siwaat mhm. ndax it nag jóge fii dem ci dëkk ba bu sell boobu bàyyi fi sa jabat ñu tumuranke ñu nekk ci ay jafe-jafe kon daanaka tey loolu dafay nekk lu doy waar te te mhm. tatawafaru bihima asihatu wal maal dañ wax ni aj li ko composé pour nga mën a dem mooy nga am wér waaye tam ab loo mën a demee kon fokkit nga bàyyi xel sa njaboot gii ci lu nu mën di dunde ba ba ngay dellu siwaat mm-hmm. ustaas loolu itam nekk lu am solo mm-hmm. waaye bokk na ci ustaas tabaarakallaahu li ma lay gunge mm-hmm. mooy euh, kii jóge fi euh, di waaj pour dem mooy mu fexe ba balu ak balante ak ak ay dëkkandoom moo xam yi jigéen yi la moo xam yi sare kon balante ak itam ustaas yooyu nekk na yu am solo ustaas su fekkente ni yooyu point te mooy nga sant yàlla mi la defal tiraanga bu réy boobu waaye itam nga fexe ba fay say bor waaye tam nga fexe ba baalanteeg àq ak say dëkkandoo. Mhm. waaye tam nga fexe ba bàyyi fi loo xamante ni dana mën a dundal sa njaboot. Mhm. waaye itam nga fexe ba nekk koo xamante ni eh, da nga da nga da da nga setal sa bopp daal ci lépp loo xamante ni luy tuuma la. oustaz mhm. loolu nekk lu am solo kon. yooyu nga xam ne yu nuy gunnee mbokk yi la yu nuy gungee mbokk yi la balaa ñuy dem. Eh, ban jàngat nga ci am. jërëjëf sang bi. yaa ngi indi bi ci jëkk shukru lillah maanaam sant yàlla ndax comme yow koñ bi nga dëkk wala gox bi nga dëkk yow dong dëkkoo fa yow dong bëggoo dem te defaloo yàlla it lu jar mu yóbbu la fa hmm? màkk ku fa dem defaloo yàlla lu tax mu yóbbu la fa xanaa ci mbaaxam la rek nga war koo fàttaliku nag sant ko bu baax. mais sant la. bu baax a baax boo xamante ni bii. Mm-hmm. kii kat war naa ko delloo njukkal. Mm-hmm, mm-hmm. ndaxte kat. teraanga magul. yàlla wërsëgal la biya màkk. fa la teraanga yem. wallaay ndeysaan wallaay ndeysaan te nag. képp koo xamante ni bii yàlla jox na la ko. Mhm. la nga war a jëkk a xalaat mooy wéet tëju. Mhm. sant ko wa yaa xam da koy sant ci lammañ. wallaahi ndeysaan yaa xam da nga koy sant ci naafil. wallaahi ndeysaan yaa xam xeetu ibaadaat boo ko war a mën a defal. won ko nekk ko nag man kët. Mhm. aw ma dara waaye dama lay njukkal rek. sa tegal sa baaraam foofu tabaarakallaahu ñu ubbi ligne bi rek ci képp koo xam ne ba nga ko ak ñun ci sunu émission bii di xasasul anbiya tey jii waxtaanee tabaarakallaahu xaj màkk 88 628 10 95 88 628 10 95 ci seen émission xasasul anbiya mu andi leen tey wàccaayu xaj màkka oustaz tubaarkalla ñu bàyyi la nga continuer kon cant googu mhm. yàlla yeyow na ko alhamdulilah wax dëgg yàlla yeyow na ko mhm. ndaxte defal na la loo xamante ni mhm. wax nga ci bi ngay ubbi foo xamante ni bi boo fa demee boo ñëwee dangay mel ni kuy dóoru juddu ci setuk bàkkaar am ak njëggal dem ba wër kaabatullaam dem ba di gis fi nga xamante ni bii. <laughs> sangu jaam ñi alayhi salaatu wa fii la tëdd. wallaay waaye waaye ki la wërsëgale loolu nag. Mhm. nga mën a toog ci raadu yonent bi alayhi salaatu wa salaam. Mhm. ne ko asalaamu aleyka ya rasulullah. Mhm. kii ku ko sant koy sant. wallaay day sàmm. Hmm? foog nga sant yàlla kon foog nga sant ko. bu baax a baax. ndax mu dolli ndax nee na su ngeen ma santee. ma dolli waaye bu ngeen ma weddee. sama mbugal moom yéen a ko gën a xam. la day sàmm. beneen bi ci topp muy àddaynu. bor. fay bor bi. moom moo gën a sax nekk farata dem ndaxte wala ni nga ko waxee nga am ku ko wakiirlu koo xamante ni bii kii kat moo jéngu na su yàlla dogalee nga dellu si baax na su yàlla dellusi dogal nga dellu moom dina la fayal bor bu boobaa yow mel na ni kon yoroo bor ndaxte it wax dëgg yàlla boo demee ba di ko def dane na ko man waroo maa yoreel. ma di la laaj. suba ngoon ma topp la. nga am loo ma jox joxoo ma ko ba. aj jot nga waaj ne da ngay aji màkka demoo aji màkka dangaa dem màkka rek waaye aji woo wallaay day sànn ak da ngaa dem màkka rek ndax fay bor bi kat man moo moo gën fuuf gënalit sa borom gënalit sang bi wallaay day sànn ni nga dem aji ko parce que boo feyee bor bi mhm. ëllëg yàlla mën na laa wërsëgalewaat mhm. loo dem ak am solo bu ko defee mhm. mu ngoog ci li nga xamante ne bi yaa ngi koy bàyyil njaboot gi it nafaxa loolu muy nafaxa da nga ko war a def loo xamante ni bii nag moom da nga ko war a pare dëgg la ndax te it yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na yëkkati benn tibb. Mhm. jox ko ku xiif mu lekk ko. mu mhm. ngi mel ni leel nga doomi aadama yëpp. allahu waaw. Mhm. lu tax nag kon nga ne da ngay mottali ji benn ponk ci ponki lislaam yi. sa waa kër ñii. amuñu dépasse bu mat. dëgg sa waa kër ñii. yaa ngi leen bàyyeeg tuburanke gu rëy. ceeb amul. diwlin amul wala bu ceeb amee diwlin amut mhm. ya ca des ak ya des te loolu lépp mhm. daa war a mat ci kër gi nga xamante ni bi duñ génn di ko wuti fenn mhm. duñu ko lebi duñu ko def nen jëndal nga leen dund sampal leen ko wala bàyyil nga leen loo xamante ne bi mën nañu ko ci jënd wala bàyyi nga fa koo xamante ne bi mën naa taxawee loola sa ginnaaw ba ba ngay dellu siwaat bu dul loolu kon def koo gën a doon faral wallaay ndeysaan ak am solo sas beneen bi ci topp muy afa njéggal gi balonte àq bi mhm. Mhm. ci ñi nga xamante ni bii nag mhm. ñoom nga war a bàyyi dem àq dafa sew mu ngoog waaw am na sax léeg nga def nit ki loo xamante ne yëgoo ko doo ko yëg te fekk ne ma ngi koy métti te surtout ci tolluwaay bii nu toll nii ak surtout ci même jamono ji nga xamante ni bii yëngu-yëngu yi bari na dëgg la yàqu-yàqu yi bari na yi bari na te mën naa am nga def dara mhm. doo ko jàppee dara mhm. fekk na nit keekat mhm. moom lii nga ko def métti na ko lool te amaa sax yow mi ko def yaa ko tooñ dëgg la dëgg la su ko defee nag balonte àq googu nga xamante ni bi dañ lay baal àq ndax nag aj moom yaa ma gën a xam am na danse yu bari yu ci nekk foo xamante ni bi yaa ngi dem xamoo di nga yegg waxuma laa dellusi de kooku war ngaa mën a leeral sa ginnaaw dëgg dëgg dëgg la ginnaaw gi daa war a leer mhm. parce que oustaz Mbaye ma jël mbokk mi ci ligne bi asalaamaaleykum asalaamaaleykum oustaz ah, Ndiaye Ndiaye Adja Sow Sow Sow tabarakallah Sow Sow tabarakallah ñu ngi nuyu ñu ngi bokkal plateau bi alhamdulilah ñu ngi lay fay tabarakallah macha allah xel bi tooyati nañ alhamdulilah ñu demoon seen xel dellu na walaay ñu demoon yàlla ñu yóbbu ci jàmm ak salaam amin waay tabarakallah saw ya. ñu ñëpp ñu bokk jërëjëf saw jërëjëf saw jàng nañ ci jàngat yu ya. bëri alhamdulilah wax ngeen ci affaire aj bi kañ dañuy aj fu ñuy aje kañ mooy aj naka la ñuy aje yàlla mi am fay na yàlla fay alhamdulilah ñu def dégg stop kontaan nañ oustaz jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf oustaz soppee bu baax nek fele ci cité enseignant di Adja Nar saw tabarakallah ñu koy ziar baax di ko di ndokel tabarakallah mbokk mo mu nga xam ne tam mi ngi wacc dem ci dëkk bu sel ba kon 88 628 10 95 ci kep ko xey bëgg nga joko ak ñun ci sunu émission bi di xasasul anbiya tey nag ñëw ci wàccaayu aj màkka oustaz ñu bàyyi la nga mhm. lu am solo mhm. ndax oustaz mhm. sunu digënté ak yalla garawut ndax yàlla xajoo nañu. dëgg la. waaye nag it sunu digganteeg doomu aadama yi. Mhm. war nañ cee defar ba mu rafet. lu am solo. ndaxte. Mhm. dafa am loo xamante ni bii moom la nu yonent bi sant. Mhm. aljaaru xabla daar. dëkkandoo balaa kër. allahu akbar dëkkandoo bu baax. kon nag yow fexeel ba bi nga tànnee dëkkandoo bu baax boobu. bum la gën a gore. dëgg la. fexeel ba booy dem. ak mbokk mi ci ligne ah, mbokk mi. Baye bi na ko ziar bi. di rafetlu émission bi bu baax bismillah. di leen ziar di rafetlu émission bi amin amin. amin amin tabaarakallaahu. jërëjëf jërëjëf. li wax lépp am na solo ndax jamono bi yéen ko jàngal jamono yoo xam ne jamono yi. waaye nag lépp lu tudd suñu borom ak. wallaay ndeysaan. dafa lépp ci ay problème yàlla na laaj mooy déggoo cëf daal. dëgg la jërëjëf jërëjëf. ñaanante suma Moussa Gueye nañ ko ñu koy jàngale jàngale moo am solo. wallaay dëgg la jërëjëf jërëjëf. جرجف منتخا جرجف جرجف جرجف امين نباكوكو امين نباكوكو امين نباكوكو تبارك الله امين امين تبارك الله واي امين واي تبارك الله منتخا امين صلى الله عليه وسلم amin amin waay tabaarakallaahu amin tabaarakallaahu amin tabaarakallaahu jërëjëf tabaarakallaahu oustaz kooku itam sunu auditeur la mhm. di Muntaxa Gay tabaarakallaahu ñaani mu ñaan yëpp yàlla na ko yàlla boole amin yàlla na ko yàlla defal tawfiix defal ko taysir amin defal ko ci poos it tabaarakallaahu la muy man di wootee tabaarakallaahu nekk na mbokk bu baax waaye oustaz fa tabaarakallaahu gis nga kon ajango mhm. Euh, wax na dëgg xel yëpp ndeysaan ma nga fa mm-hmm. xol yëpp itam tabaarakallaahu ma nga fa mm-hmm. ndax rek tabaarakallaahu am lu jafe te mooy mm-hmm. mottali ji sa juróomi la ponk waaye itam ndax rek seeti ka nga xam ne tabaarakallaahu moo tëdd ca almaritul munawar borom tiraay bu rafet ba oustaz ba tabaarakallaahu kon laaj na kii itam bala muy àgg ca ñooñu mu waajal boppam ci yii ñu wax léegi te yaa ngi woon ci baalante ak ndax aq dafa sew oustaz àq jooju nun yàlla xajoo na lu nu ko def xajoo na ko tey jaamum lan da day sànn <clears throat> méttiw ko it waaye sama diggante ak yow mooy problème dëgg la war naa ko leeral bu baax ba nga xamante ni bii lu mën a amit moom leer na ba pare walaay dëgg la jéggal nga ma walaay ndeysaan walaay ndeysaan dëgg la ndax jéggalu gi ma la jéggalu it moo la liw sa xol. ba nga jéggal ma te yàlla rek tax. walaay ndeysaan su ko defee su ma yeggee. dina bu ma góor góor lu tuuti tuuti lu ma ci dolli rek. yàlla mën na maa wërsëgal. xajjul mabroor. walaay tabaraka muy aj goo xamante ne bii guñu nungu la. amiin amiin tabaraka ñi nga xamante ne bii ñoo dem. yàlla na yàlla buur tabaraka wa taala wërsëgal leen ko. amiin tabaraka ñi nga xamante ne bii demaguñu ca bëgg a demit. yàlla yàlla defal leen ko. mu mel ni ki kon. njëgg la ngoog jéggalante uh-huh. lu am solo la ndax nag bu uh-huh. fekkente ni dangaa dem yaakaar njéggalug yàlla uh-huh. ah boo demee dina la jéggal ne la nit ñi jéggal nga door dëgg la tabaarakallaa am na solo sas euh, li nga indi am na solo lool xam naan ñu ngi ci ziara mbokk yëpp ku ci mel ni soxna Issa Fall tabaarakallaahu ñu ngi koy ziar bu baax di ci ziar tam tabaarakallaahu euh, sunu mbokk taximan bi di Alika waaye nag duñu fàtte mukk tabaarakallaahu soxna tabaarakallaahu coro ah, ah, tabaarakallaahu jaxate duñu ko fàtte mukk duñu fàtte mukk itam tabaarakallaahu soxna Faatumata Siise Siise ñu ngi koy ziar bu baax a baax a baax di ziar tabaarakallaahu ah, soxna Maymuna tabaarakallaahu di ziar tam may soxna Maymuna Diouf soxna Maymuna Sàll tabaarakallaahu maire tabarakallahu njufa ñu gën go xam ci aja maymuna djuf tabarakallahu ñepp ñi ngi leen di jaar ñu fàtte mukk tabarakallahu aja tabarakallahu aminata tabarakallahu ñepp ñëpp ñu ngi leen di ndokkel baax ci tabarakallahu période bi ñu toll di aj makka oustaz fa tabarakallahu loolu nekk lu am solo kon 88 628 10 95 tabarakallahu ci seen émission xasasul anbiya di waxtaane wàccaayu makka oustaz mm-hmm. euh, laaj na itam nit ki eh, fexe ba li naan alam nashrah laka sadraka mhm. fexe ba ubbi sa dënd mhm. yaatal sa dënd mhm. lu nekk ndax nag gaaw a mer baaxul te makk nag képp ko fay dem sa xol xat nga gaaw a mer soo moytul da fa am jafe-jafe parce que léeg-léeg ñu dëgg la léeg-léeg ñu def la loo yi naka si lu noonu la waaye nag il faut que nga ubbi sa dënd il faut nga yaatal sa dënd eh, tabaarakallaahu bañ di gaaw a mer Mm-hmm. oustaz la itam ab yóbbal la boo xam ne ñu ngi ko yóbbal mbokk yi mm-hmm. tabaarakallaahu mm-hmm. waaye oustaz bokk nañ itam tabaarakallaahu eh, nga fexe ba itam eh, kii aji màkka fexe ba eh, di nëbb awraam te moo di di sol yére yu jot gis nga sol yére yu jot dañ koy dénk kenn ku nekk rawatina boo nekkee ci at di bokk ci gane yàlla yooyu nga xam ni yaay siyaar ji baytullahi al xaram bëgg taxaw ci kanamu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam koy tam nga fexe ba sol sos yiri jot tabarakallah amna na solo waaye saas itam tabarakallah eh, ñi ngi bayilo xel mbokk yi nga xey dana bokk ci yeen mazahib ci ci benen mashab ci benen ngir mhm. leg leg nga joge fi mhm. am lo tamon di def mhm. waye ga dem fele gis ñom ñi def leneen lu woro ak li nga def rek nga bëgg leen top ci loola masran tay ji ma jox la ci misal nafila gannaaw takusan ñoom bo dañ koy def te yow sukkandiko ci ngir yoy sa ngir eh, bu nu xesee julli san ba noppi dootoo la mhm. kon fofu tabarakallah itam mhm. ay mbir la yo xamanteni mhm. laaj na ñu gungé ko mbokk yi nga xamni tabarakallah ñoy dem ci dekk ba sel ba ñu yo ko nek lu am solo parce que bañ rek lo gis rek ah, li dan la deug la lolu, sang bi lolu lu am solo la ndax nun dañuy roy imam malik te limunu nu permettre lolu bokku ci ndax nun li ëpp fii nag ci ci ci ci ci Sénégal. maaliki mhm. yoon lañ. Mhm. ñu ngi benn góor mi ngi ci doon waxtaan ak man benn kilifa. Mhm. bërki biig ne bi mu demee Màkka wax na ñoom ne leen. lu tax Malick man leen. di kilifa ñi ngeen topp ñëpp te yéen daal maxu leen ci imaamu Malick dara. <laughs> ndeysaan. kon bañ gu mu bañ. lii nga wax ni. moo indi woon loolu naari di ko laaj. teg ca nun royunu wa makka royunu wa makka xam nga lutax sunu mag ñu bax ñi fi nek ni xamé nañu maska ak nokta hmm? deug la cheikhul qadim xamé na maska ak nokta haji malik xamé nako abdul qadir jilan xamé nako kon kun fay day sabbu danoo dem rek. Mhm. jooxe ji benn ponk. Mhm. bu mu dun fa suppi jikko. Mhm. mukk ca dun. lay day ponk bi ñuy jooxe nu fa pare. dem siyaare ji ki nga xamante ne bii mooy sunub sang. day di sangu àdduna ak àllaaxira loolu bu nu defee sunu xel ne moo nu fa yóbbu waaye doo ma suppi yëpp doo ma suppi ji ko de bu nu demee li nga moom mhm. naa ko jël mhm. jël ko mhm. ma jël li ma moom muy sama diine ak sama masaahib bi ma nekk fii la ma tënk fa ma tënk ci laay def yàqut ci sama aj dara dëgg la que farataay aj bu fi xajee dina ñëw yooyu bokku ca naafila yooyu nga xamante ni bii ay naafila ginnaaw tàkkusaan la ak ya nga xamante ni bii Bala timis la mhm. yoyu nun li nga xamne duñ ko def fi mhm. duñ ko def mhm. ndax te nak li nu teunk fi mo nu teunk ba fofa boyelu nu ben yoon jërëjëf nu ben lol nek na la am solo wa tasawadu fa inna khayra zat ataqwa ma ngi dénk itam mbok yi nga xamne ño nek ci waccay ah ño ut yebal, parce que yëbbal itam la ci am solo la wax nak ni yóbbale bi ci gën mooy attaqwa te mooy ragal yàlla mhm. boo fa demee nga ànd ak ragal yàlla mhm. ci say wax mhm. ragal yàlla ci say jëf ragal yàlla ci sa comportement ragal yàlla te xam ne yàlla mi ngi la teg bët même yow boo ko gisul moom mi ngi lay gis waaye nag beneen yóbbal bi nga xayit am na solo mooy nga fexe nag ba gànnaayoo xaalis ah, ndax màkk moom dina ko jaar ah dafa am solo parce que dañuy wax ni màkk ba fa demee mm. bu say riyal jeexee say ree jeex <laughs> say réal bu jeexee say ree dafay daal di jeex ba jeexle woowoon ah tabaarakallaa ñun nag man dee moom yàlla defal nañ tawfeex boo xam ne eh. eh, tabaarakallaa sunuy réal jeexul woon ba eh. bin dellisee kon yaa ngi doon ree daal ah kon bu réal yi jeexee rek ree jeex hmm. Hmm. kon ñi ngi dénk mbokk yi nga xam ne ñooy waaj hmm. ñu fexe ba am lu ñu gànnaayoo loo xam ni bu ñu demee mën nañ faa bañ a jaaxle ci wàllu lu ñuy jënd ci wàllu lu li nekk ak ci mel nekk yooyu waaj saas itam laaj na itam boo demee itam nga xam ne trisme ya la yow la la yóbbu mooy jaamu yàlla jaamu yàlla moo la fa yóbbu waaye bar dañu bari ñoo xamante ni dañuy yaakaar ne trisme moo leen fa yóbbu fekk noonu la nga fa yóbbu mooy jaamu yàlla tabarakala kon jaamu yalla ga na nga ci sax mhm. suba ak ngoon ba bëgg dellu siwaat oustaz loolu nekk lu am solo popit looy dolli ci loolu wax ni léegi ndax mhm. daanaka ni am ci waxtu mi ngi bëgg jeex waaw kon mhm. yi nga wax noonu rek mbanam yóbbul bi gën ci yóbbul yi daal mooy ragal yàlla ci foo mën a nekk nag ak foo mën a toll beneen bi ci toppit wàllum xaalis boobu ngay tudd mbàndum ree la fay waral ree ju jeex même mën nga koo yóbbu mu doy sëkk nga sàggan ba ñu jël ko te loolu it lu bàyyi xel lu mat a bàyyi xel la lu ñu war a fagaru la comme loo xamante ne bii say rey day day bu jeexee say rey jeex te rey jeex nag jaamu yàlla goo xaw a taq suuf mën na caa dugg parce que dootu ñëw na mu war a ñëwee dootoo nekk yaa ngi xalaat te wax dëgg yàlla lu ne xaj na ca. dëgg la kon daal préparé ko. dëgg la wut nafa soo xamante ni bi wala caag soo xam ne comme ni ko oustaz Libaas di defee. da nga koy takkaayew ci biir. <laughs> ndeysaan euh, bu ko defee. ki uh-huh. booy tëdd mu ngi ak yow. Uh-huh. booy dem ma nga ak yow. Uh-huh. foo mën a jëm mi ngi yaa ngi ko takk ci ndigg li. ak am solo de kenn du ko ti te di ko bàyyi xel bu baax ko bàyyi xel bu baax a baax kon boo ko defee. mën naa am di mucc ci. yooyu nga xamante ni bi mooy. lay jeexal reeya waaw sas bu ci am solo itam hmm. mooy ixlaasu niyya hmm. maanaam ki nga xëy dafay jug itam pour aji hmm. na sellal yéeneem xam ne jaamu yàlla kese moo ko tax a jóg sas ixlaasu niyya dafa am solo maanaam bila ruya wala a wallaahi maanaam nga xam ne yow lii ngay def dangay ngay dem rek pour mottali ji sa juróomi la ponk waaye bu ca ngistal dugg waaye bu ca ndéggatal dugg ndax bu ca ngistal duggee la ngay wuti doo ca am dara bu ca ndéggatal duggee la ngay wut doo ca am dara kon ixlaasu niya mhm. bila ruya wala sama mhm. dafa nekk lu am solo kon mbokk yi mhm. mboolem koo xam ni yaa ngi waaj na nga bàyyi xel ni lii kat bu ca ngistal dugg mukk waaye bu ca ndéggatal mu dugg dugg mukk na nga ko def rek mu nekk ixlaasu niya sellal sa yéene te xam ne da ngay mottali sa juróom yi ponk oustaz loo nekk lu am solo kon kon daal oustaz baat boobu ngay wax ci arab tekkil nu ko ah. ixlaasu niyya bi mooy sellal sa yene da nga am yéene bu sell nag wane ni yow mii da ngaa jug pour mottali ji sa juróomi la ponk ngoog waaw bañ caa dugal ngistal bañ caa dugal ndugatal parce que bu ca ngistal duggee ixlaas amatul bu ca ndéggatal duggee ixlaas amatul ixlaas mooy lan ixlaas mooy selal sellal sellal tabaarakallaah ban jàngat nga ci am nga tënkal ma foofu tàgguwaale xanaa rafetal ko parce que lu mu mën a rek ba da am solo ndax jëf dina rëy lool pay ga tuuti mm-hmm. waaye yéene baa tax jëf dina tuuti lool. Mhm. pay gërëy yéene baa tax kon mhm. rafetal gi. Mhm. moo ci am solo. yàlla na ko yàlla defal. amiin tabarakallah euh, defal ko mbooleem jullit. amiin tabarakallah bi jaay Seydina Muhammad. sallallahu alayhi wa sallam ña nga xam ne ñooy dem. yàlla na yàlla yóbbu leen ci jàmm. amiin tabarakallah amiin tabarakallah defal leen it aj gu ñu nungu. amiin tabarakallah yàlla yombalal leen lépp. amiin bañ leen a jafe. amiin tabarakallah nun ñi fi des it. yàlla na yàlla may kattanug dem. amiin tabarakallah bi jaay Seydina Muhammad. tabarakallah oustaz loolu am na solo kontaan nañ ci sa teewaay lool kontaan itam tabaarakallaahu ci li nga fi jot a jàllale gàtt na waaye am na solo waaye dañuy gis ni tabaarakallaahu du ñàkk deen fi ñëwaat beneen yoon boo xamante ni bëgg nga gënu mm-hmm. ndax euh, xasanu bi yi euh, ku ne xam na ne yenente a aj dan màkka mm-hmm. te tabaarakallaahu xam nga fi mu toll nii tamit ñu ngi ci wàccaay yi mm-hmm. kon laaj na ñu a mbokk yi tabaarakallaahu xam naa danañu wax comportement bi ñu war a nekkee fële ci a Munawwar ak madina yan fay def julli si jàkka ji yiw ci nekk ak tabaarakallaahu bu ñu demee ci dëkk bu sell ba yin war a ajoo gànnaa yooyu yëpp danañ ci ñëw gën leen yaatal insha allahu taala kon bu ko defee tabaarakallaahu ñuy wax rek ni eh, in uridu ila al islaam mastataatu wa ma tawfiqi illa billah ah wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu gannaaw bu nuyoo nag sëñ Mbay Ba tabaarakallaahu ci tabaarakallaahu ak ñoom Mbay Touré ñoom sawru mm. tabaarakallaahu ñëpp mm. ziar na leen ndokkeel leen tabaarakallaahu ci seen uh, dégg ñu dégg